Idrissa Seck di Madické Niang ma waxoon leen ne leen insha allahu rabbi ci kàttanu sunu borom bi ñu defee sunu listixaar ñun li nga xam te ni ñun yàlla dogal na sunu borom wan ni ko wax naa leen Macky Sall mooy gagné deuxième mandat insha allahu rabbi ci kàttanu sunu borom te loolu waxoon naa ne su fekkente ne amul man Serigne Mame Thierno ma dagg sama poos. ah dégg ngeen ko de dégg ngeen ko de kon nag alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah fa tabarakallah waa jërëjëf Serigne Mame